société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo di may seen revue de presse dal leen jàmm ci yëglekaay réew mi quotidien ma ngay àddu jëmale ci rafaal yi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko di envoyé kii di Macron moom jiital Pastef démb ma nga woon ca UCAD ak Jean-Luc Mélenchon moom nag ma ngay xam ne nag en tant chef de parti Pastef ñaawlu na bu baax a baax taxawaayu président bu France ci jamono ju ñu koy xoqatal ci atum 2023 mi quotidien ne Ousmane Sonko

bàyyi benn yoon suñu frère yi nekk ci Sahel bi daañu def suñu kéem kàttan ngir jàppale leen nag ba ñu mën a génn ci CFA bi moom Ousmane Sonko nag di leeral ne amut lenn luy justifier nag lu ëpp ci ndakaaru nag ay base militaire étrangère di ko occupé lu jëm ci mbirum góor jigéen ñi nag moom Ousmane Sonko xam le ne ni daal Sénégal taxawaay bi mu ca amoon démb moom la ca am tey nag du mës a accepté nag ñu leen di imposer lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllum propagande bi Vox Populi dellu soir ci relation bi nga xam ne rek moo dox diggante Union européenne ak Afrique waaye France ak Sénégal spontanéité bi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko taxawee ni ki démb yéenekaay bi ne Sonko ma ngay wax ay dëggam Ousmane Sonko di xam ne ne nag Afrique dafa doon continent boo xam ne rek bu ñu mën di inspiré woo la moom jiital Pastef di xam la ci biir yëglekaay bi ne gouvernement bu France ak waa Union européenne nag amul benn jéego boo xam ne rek teg nañu ko ngir ñaawlu nag ni nga xam ne noonee la ñu doon dalee ci kawam jamono ji nga xam ne rek ci la Macky sàll jiite réewu Sénégal mel na ku koy tontu Jean-Luc Mélenchon nag naan Ousmane Sonko bu yeboo daal ngeen xam ne rek àdduna wërngal këpp jamono ji nag yéen rek lañ ñuy xool te seen wareef rek nag mooy ngeen taxaw taxawaayu ko am dignité waaye tamit nag koo xam ne rek dafay xam fi mu jëm ak li koy xaar enquête yëglekaay na Sonko ak Mélenchon nag ña ngay àddu jëmale ci a li dox ci monde bi nag waral ba yëglekaay bi di peeko les termes d'un new deal ne Ousmane Sonko nag jamono ji nag ma ngay àddu jëmale ci base française yi nga xam ne rek jàpp na ne li ëpp ci Ndakaaru nag ñoom ñoo ko occupé lu jëm ci ndimbal gi nga xam ne rek moom la ñu war a amal jëmale ko ca Mali ca Niger ak ca Burkina Faso jëm ci wàllu français fa gouvernement bi nag ña ngay xool ay jéego yu ñuy teg rek ngir mën a génn ci boobee système ci yëglekaay bi nag Mélenchon ma nga fay xam ne nag ne lu jëm ci wàllu monnaie bi nag a régleel Sonko bëgg na France Afrique bu yees Le Quotidien yëglekaay ne jamono ji nga xam ne rek ci la Mélenchon doon waxtaanee lu jëm ci mbirum borom ñaari tur yi ci kanamu Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne rek ñoo di étudiants yi ay tàccu lañu

lu tollu 717 milliards yi nga xam ne rek moom la ñu dugaloon ci wàllu wi Ousmane Sonko ci conseil interministériel bi nga xam ne rek doon nañ ko amal jagleel ko wàllu inondation yi ca jam ñaajo nag ma ngay xam ne ni daal faaw ñu càmbar rek lu toll ci 717 milliards yi nga xam ne rek moom la état bu Sénégal dugaloon ci wàllu mënd bi nag ana lan lañ ci def ngir jël seen ay matukaay nag ci wàllu mënd mi fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne gouvernement bi nag taxawal na ñaar fukki mesure ak ñaar Le solo yëglekaay fetlu ko ne conseil interministériel bi ñu doon amal nag ngir lu jëm ci wàccaayu mënd mi nag que gouvernement bi jël na ñaar fukki mesure ak ñaar élimaanu joriñ bu Sénégal Ousmane Sonko ne faaw rek ñu càmbar koppar yi nga xam ne rek moom la ñu dugaloon ci at yu ñu weesu ci wàllu mënd mi nag ak lu jëm ci tabax yoo xam ne rek moom mooy jàllale ndox mi nga xam ne rek moom mooy taa ci barab yi nga xam ne rek mooy faral di inondé waaye lu jëmee ci relogement yu sinistré itam nag faaw ñu daal di xool tamit koppar yi ñu ci dugal fan la mujjee le temps moo yëglekaay ne régime bu Macky Sall jamono ji kay ma ngay lab ci biir ndox mi nag Ousmane Sonko ma ngay digg ne nag fi mu toll nii daa ñu inondation fii ci réew Sénégal ndax amul benn taw bu doy waar boo xam ne rek mën naa justifier nag inondation bu doy waar bi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci biir réew mi liy dëgg rek te ñu war koo wax bokk na ci négligence bi nga xam ne rek kilifa yi am nañ ko waaye ñàkkum yar gi nga xam ne rek fës na ci askan wi loolee rek mooy sookee wàllu inondation bi nag te anarchie boobee nag faaw rek ñu daal di ko fiy jëlee ngir nag mënd mi nag dootul doon luy sonal askanu Sénégal addu jëmale ci réew mi people tey jii nag mi ngi dalal melo fii moom nag ñu gën koo xamee ci dajju bu Sénégal artiste la rappeur boo xam ne rek li mu bëggoon lépp daanaka mi ngi koy réaliser waxtaan nag Anna Thiaw nag ci parcours am bi nga xam ne rek mi ngi ko tàmbali woon atum 2023 waaye nag ci atum 2019 participé woon na nag ci seen émission seen petit gàlle yër leen boobee yëglekaay addu ci wàllu tàggat yaram stade yëglekaay ma ngay sampla ci diggante Galatasaray Juventus ak Chelsea kan moo nar a offrir pépite kii di Lamine Camara sunu lamb moom xëy tey ji nag Gris Bordeaux ak Ama Baldé guy gi ak Ada Fass ak Liss mu di ay face à yu tàng